Sane guy gee ngi noonu da lay buusu de buusu bi laay bañ buusu bi mooy tur dare la àndal dare dare dare waaw wane buusu si dare. du gée ngi noonu ñett waaw ñeent moom góoy gi. du gée ngi noonu. am na butéel ba mu yor. baroo ko koy jox baroo ak dare. barooy sotti boobu day raxasu. Eh, cey guy borom cene ba <laughs> cene ba la dëkk am na cene ba sec am na cene ba gaar noonu waaw ñu ngi leen di fay ginaaw bi ñu waxee onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli ci nabi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ si Seck borom digal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér di nuyu sama xalifa général Baas yàlla na ko yàlla yàggal ci jal bi ak bépp kilifa diine ak kilifa aada mhm. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di nuyu waa Cenaba Seck bu a baax a baax a baax bu baax di mhm. nuyu waa sama yaay Wara Sarr comme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 bu bis ba jotee la vingt. waaw loolu c'est confirmé dama koy waxaat. Ah. incha allah dinañ jàmmaroon dinañ laalante bu baax. Ah. dinañ laalante dinañ bëree te bëri bi moo war a gën a ëpp. la xeex bi mun am dañuy naxante mais dinañ xeex mënul ñàkk donte cinq minutes dinañ xeex. Hmm. parce que avant combat bi xam lu ko waral. te defe hmm. naa ni góor bu la nee. dinaa la def nangam dinaa la def nangam soo amee jom da ngay dem defaru te góor balu maa may laal te laalee guñu quoi moo tax te buñ laalee non non du wax lu ne loolu lépp ci làmb la jël ah. waaw loolu moom dañ ci wax yàggatul vingt cinq jours la di ñaan yàlla yëpp yóbbuñu journaliste comme ñu fekkee rek ñëpp suñu supporter ak moom incha allah ba yàlla may ñu taw ak fekkee mm-hmm. juste ñu génn suñu kër ñëw incha allah bu ñu stade pare nañ wala pare yàlla nag moom moom ndam yàlla mooy borom fanliment rii yàlla moo pare ñun pare wuñu liñ li liñ am liggéey ko am nañ yaakaar mun na tenir suñu combat incha allah te liñ nekk moom comme li ma la wax rek wax moom jëltul quoi parce que moom moo dese wax moo ci prouver de preuve tout lépp ma def naa samay preuve ah, waaw ma def naa nga fépp preuve samay preuve def naa ko fépp mais bés bi bés la ci ñi taxaw xam ngeen kuy guy gi li ma capable lu ma capable kon ma fi nekkee di wax su ma dee wax xam naa su su ngeen waxul su ma dul wax xam ngeen kon def naa li de jërutu la gi sànq ko laajee daf ni dugg na géej waaye te dana fa duggaat te bu fa duggaat waaw loolu <coughs> man du ma ci nekk du ma fi nekk naan dugg na géej waaye mais nag gaal la fa ser la wax gaal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 Ah, xamul ni may contacté xamul sama <laughs> état de forme xamul ma xam ñëw ne ma mbër ne ma mbër mbër mbër mbër mbër mbër mbaa yaa ngi nangam ndeysaan nag rek waaw déy waaw déy ah, ah. di ndax nee na dafa jël maanaam xeex ak yow parce que nee na xeexu wane woo ci la ko man nee na mënoo xeex mënoo ci làmb waaw léegi moom mënu ma xeex loolu soreetul xam man nanu moon sax tey dañ moo man tey man dañ ma wax loo quoi comme ñi nekk dañ ma wax loo mais billaahi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 ñun lépp wàññi nañ ko déggoo combat bi combat bi combat bi maa ci mayewul virgin ku ah. bokkul ci combat bi génn ci. génn ah, ku ci bokk dugg ci ku ci bokkul génn ci. luy loolu. non loolu waxin la man duma ma signé nit du ma signé ak nit nga teg ma duma si du ma signé nit wala say booy nan man nangam suuf suuf sax laa la wax. Ah. man man musuma signé ku ko am ku ku gis sa booy nga laaj ko ko nga wax man du ma signé ak nit buñ la fayee fay mbër mi wax naa ko sànq eh, ci ci RFM non violence nañ ko dindi li ko indi mooy. koo xam ne nii da laa bëgg a saraxe na la combat bi defal nangam kër guy gi. wala la kër guy gi. waaw sunguf laa wax sunguf. sunguf bu ma fa bu ma fer fer fersete xaw ma nu ñu koy wax bu kenn du ko waxati. déedéet buddi bi mën nga koo buddi yow man ngaa guddi buddi rëg rëg. su ma ko non. mën nga koo buddi laaj. mën nga koo buddi est su ma ko su jàppee ci ngemb li. waaw day jug. soo jàppee ci ngemb li day jug moom nee day zongale kenn mënu koo tee zongale. non non